asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di wax képp kuy gën ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés kolas bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis di leen wax tamit ngeen wéy di liker te di commenter vidéo yi te di partager bokk na ci li ngeen ñu mën a soutenir ngir ngeen gën a pousse seen bi euh, mu gën a jëm ca kanam kanama kanam ah. aujourd'hui nag day ñëw wax ci musaa Ndiaye Moussa Ndiaye bu Anderlecht actuellement ni euh, je pense que ne démb faire une ci vidéo ñu bari ñi ngi xalaat que dafa wara ñew ci équipe nationale bu Sénégal li ko waral moy que actuellement nii euh, ki nga xamantene moy mooy Saliou amagul club euh, toujours également latéral gauche du Sénégal am yépp actuellement amu compétir te amu ñu compétition sen club jeu wuñ fa fa daanaka ku ci melni ne touré ak ki nga xamantene moy Ismaïla Jacobs donc gars yi gis que ne Moussa Ndiaye actuellement mi ngi def ay performances yu am solo di def euh, des très bons matchs actuellement fofé ci Anderlecht gars ne pourquoi pas à Cissé woko wala sax mu nek surprise liste Aliou Cissé démb man defon na ci euh, vidéo wax que ne je pense que ne fekkee Aliou Cissé euh, amul club que euh, situation où Jacobs Jacobs Fodé touré sans actuellement à 30 jours du mondial je pense que nous parce que Moussa il joue dans son club actuellement au niveau du championnat belge muy Anderlecht également il est performant. Et il enseigne les matchs et les bonnes prestations actuellement il rien à dire euh, tey jii bu ma Moussa Diaye a-t-il le niveau pour jouer la coupe du monde dama le oui oui bien sûr que am le niveau bi aujourd'hui euh, tey jii 6 sujet jour da nga koy sujet ci grand match les grands matchs de Moussa Ndiaye fait présent bi ñu euh, au côté de Anderlecht muy clubam bi mu joué ci Ligue Europa conférence donc il faut nga xamante club yu mag yëpp ñoom ñoo fay contre West Ham dafa euh, def une prestation solide euh, et propre défensivement et offensivement aujourd'hui kon Moussa am na niveau bi ak leneen li ma ciy leeral mooy que da ngay gis ñoo xamante ne ñaan Moussa Ndiaye euh, xale la actuellement te Moussa Ndiaye il a 20 ans actuellement nii am na expérience bi joué na Sénégal IV dem ci coupe du monde voyagé partout à Barcelone donc mu jëlee foofu noonu expérience euh, ñu bëgg wax que ne amul niveau et également nga dégg ñenn ñi naan. Hein, euh, trois matchs professionnels rek la et tout ça man du juger non joueur quand quand est-ce que la joueur est performant damay japp que ne amna niveau ngir jouer euh, damay japp que ne war nañ ko woote Moussa Ndiaye actuellement ni mi ngi def ay performances am solo actuellement ni euh, mi ngi compétir te amna compétition bu baax baax et que man du juger jugé joueur ci ñaata matchs professionnel le joué parce que tay jii boo jëlee exemple Gavi bu Barça bi Espagne wo bobo je pense que 3 matchs pour régler def parce que moom Moussa Ndiaye presque ñoy yam ka parce que mom la martial du centre de formation bu Barça ci xalé yi Moussa Ndiaye également dafa jaar fofu non te Moussa mo gëna a ëpp expérience que Gavi et également mom moko fété mag Moussa Ndiaye il a 20 ans actuellement et Gavi il a 17 ans kon ñooñu ñaar ñooñu noonu tey su ma doon comparé ci ñaata match pro loolu noonu kenn du ci comparé jour je pense sama xalaat nag laa joxe ak sama gis-gis waxuma ne li ma wax moom moo am mais Moussa Ndiaye actuellement il est performant je pense que les performance jour la ñu mais pas match pro le def wala pas la wala Gavi mi ngi imposé ci équipe nationale bu Espagne mi ngi ci euh, autant pour moi ci euh, club but di Barça te tay ji bo xol ci âge euh, wala moy lol non ko dogo ko te ñu aujourd'hui Moussa Ndiaye talent bi mi ngi potentiel bi mi te performance yi tamit ñing fi ak prestation yi mu def loolu moom moo koy firndeel kon Moussa Ndiaye am na niveau ngir jouer coupe du monde je pense que mën naa nekk la grande surprise dans le liste d'Aliou Cissé pour la prochaine mondiale donc kon gars yi li laa leen loon ñëw leen ci commentaire yi ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis jaa ngeen